audu billahi min asheytaan irrajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalina sayidna wa nabina muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabiahum bi ihsaan ila yawmi ddin asalaamaaleykum mbokki groupe daara mag ñi wa ahlu sunnati wal jamaa seen mbokk Mouhamed Amine Sall ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaare di ñëw ak yéen ci sunu dars kafaaf bi ñu war a jàng tey muy ñaareelu xaaj ci euh, boobu buntu boobu di wax shurutu salaa ci kafaaful mubtadi Mouhamadul Fall di ci wax ni wa ma bi jambika tamassu aw yamas thawbaka aw taxta xasirika kanas wala bisun tarafa thawbin bi qadar tarafihi lmalqiyi bil ardi stadar la fawqa xayin gayrihi wala huma yunsabu ma wasatahu baynahuma wa caaqidun bi codwihi ra'sa jamal fa ma aqallathu safinatu xamal mooy ñeenti bayit yi nga xam moo nekk ci seen kanam ngeen di koy gis dafa doon wax ni place maanaam ci dars bi jàll bi ngay jullee dafa war a laab charte la ci julli waaye bu ñu wax place bi ngay jullee mooy fi ngay taxaw ak fi ngay toog ak booy sujjoot loolu daal bu mu am sobe la ca des lu wër la nag wala nga tiim ko te laaloo ko du yàq dara ci sa julli maanaam benn waay bu doon sujjoot lim li nga xam si moom la dënd bi tiim ci bi muy sujjoot am na sobe waaye laalu ko du yàq julleem sa diggante ñaari xarante tànk fekkee bii nga fi taxawee sobe nga fi te laaloo ko donte ci kaw lis gi la wàññiw la dara boo amee sobe soo xam ne siitim dafa am ci catal ndis ngay jullee te laalu la ba tey du yàq sa julli moo moom la waxoon ci bay mujj ca euh, dars be laa euh, la laa najasun bi tarafil xasiri law maara mawraka ala ala mu wax ci bayt bi nag ni ma bi ka wama bi jambika tamassu aw yamas thawbaka aw taxta xasirika karas benn waay boo xam ne si dafa jonjoog ci bi muy julli maanaam laal na wetam laa maanaam jonju na ko ci wet sobe soo xam ni taqu ko fëndalu ko maanaam pëndu sobe si laalu ko sobe si tooyalu ko taqalu ko waaye nag bi muy julli riisu na ko sobe su la riisu ci bi ngay julli du yàq sa julli waaye nag boo ci toogee sa julli yàqu na boo ci toogee sa julli yàqu na boo ko yanu sa julli yàqu na waaye du fekkee dafa laa riisu te taqalu la tooyalu la fëndalu la bu boobaa du yàq sa moo tax mu ni wa maa bi jam maa bi jam bi ka tamassu sobe soo xam ne dafa laal sa sa boo sa wet aw yamas saw bu ko wala saw baka maanaam sa so sa mbubbu laal ko wala mu laal sa mbubb wala sobe su nekk ci suufu li fi ngay jullee maanaam li nga teg sa ji di ko sujjoot di ci sujjoot ca suuf sobee nga fa du la dara mooy ma bi jambika tamassu aw yamassu baka aw taxta xasirika kanas kanas mooy lu denc wala mu dencu wala mu dencu ci sa suufu euh, fi ngay jullee wa laabisun tarafa thawbin bi qadari tarafihi lmalqiyi bil ardi istadarra bayit bi nag boo ko li arabee ci lay gën a neex a digg wa laabisun tarafa thawbin laabisun mubtada marfuun bidammati zahira tarafa maamulu mubtada maanaam mafulu mubtada wa huwa mudaaf thawbin mudaafun ilayhi kon mubtada ngoog wala bisun tarafa thawbin maanaam mooy koo xam ni dafa du dafay julli sol maanaam làmbaayoo cetal yëre maanaam sol benn cetu yëre mu am gen benn cat boo xam ne si nag ma ngay ci suuf di buubi ci sobe bu boobaa yow sa julli yàqu na mooy wala bisun tarafa thawbin istadarra mooy xabaru laabis istadarra moom waa jooju dana loru bi xadari ci sobek tarafihi tarafihil malqiyi bil ardi cet li nga xam ne si moo daanu ci suuf cetal yére bi daanu ci suuf kii julli te sol la la leneen la ca des beneen cet ba ca des ki ko làmbaayoo di julli beneen cet la di laal ci sobe sobe soosu muy laal day yàq culleem parce que riisootu ko tey dafa dafa mel dañuy dafa day mel nag ku toog ci kaw sobe bi qadari bi jaar wa majrurun mutaalliqun bi istadar istadarra bi qadari bi bi qadari qadari nekk uh, mudaaf tarafihi nekk mudaaf ilayhi almalqiyi nekk sifa ci tarafihi bil ardi jaar wa majrurun mutaalliqun bi almalqiyi kon bayit bi mooy wa laabisun tarafa thawbin istadarra bi qadari tarafihi almalqiyi bil ardi maanaam koo xam ni dafa sol ab yére cat lim sol lim sol laab na kooku maanaam bu amee cat loo xam si ma ngay buubu ci suuf cat lu gudd loo xam ni ma ngay buubu ci suuf donte laalu ko loolu da yàq julleem parce que day mel na dafa toog ci kaw sobe waaye nag bu fekkente ni lam tegee dafa nekk kuy dund luy dundu maanaam benn waay boo xam ne si dafa taq rip sobe salte am sobe ngay julli ngay julli sa cetal yére tegu ci kaw waa ji bu boobaa du yàq sa julli waaye bu fekkente ni dafa tege ci loo xam ni nekkul luy dund maanaam ni ko mën a misaale dana ko wax ci bay bi ci tegu benn waay boo xam ne si dafa doon julli yéreem yéreem sol na yére mais yére bi mi ngi buubu ci kaw benn pot boo xam ne si sobe moo ci nekk wala ndab loo xam ne si sobe ci nekk donte laalu sobe mais mi ngi laal ci kaw ndab li bu boobaa sobe sa ca ndab la day yàq julleem waaye bu fekkee ne luy dund la maanaam koo xam ne si benn sàmm boo xam ni dafa yore benn xaram julli jot mu xam ni amul fum ko koy yeew amul fu mu koy yeew te bu ko bu bu ko bu ko bi day rëcc wala leen lu ma mën doon mu daal di takk tànk takk eh, yeew buum gi ci tànkam wala ci loxoom di julli bu xar ma amee sobe du ko wàññi dara parce que luy dund la waaye bu doon gaala benn waay boo xam ni dafa koste gaalam muy bañ mu rëcc mu takk buum ci tànkam ngaax gi ci boppam mu mu takk ko ci tànkam takk ko ci gaal gi bu gaal ga amee sobe waa julleem yàqu na ndax lan parce que li leen leen euh, li mu lënkalool nekkul luy dundu kon ci misaal bu fekkente ni dafa am buum guula la luy dund loolu di dund bu amee sobe du la wàññi dara du yàq sa julli mais lam la lënkaleel bu fekkee ne du luy dund bu ba du yàq sa julli waaw maanaam euh, koo xam ni si dafa doon julli catal yéreem tege ci sobe yéreem yooyu buum ci kaw sabe julleem yàqu na bu fekkente ni bu fekkente ni bu yéreem yi ci kaw sabe si laalu sabe si mais li muy buubu loola am na sobe ba tey julleem yàqu na waaye bu fekkente ni loolee am sobe luy dund la te laalul sobe sax julleem du yàqu moo tax mu ni laa fawqa xayin xayrihi laa fawqa xayin xayrihi kon walaa bisun tarafa thawbin koo xam ne dafa sol ceetal yére kon istadarra bi qadari tarafihi lmalqiyi bi ardi beneen cet ba nga xam ni dafa buubu ci suuf te laalu ko waaye mi ngi sol yére bi sobe soosee laal yére bi buubu day yàq julleem waaye bu fekkente ni lay buubu dafa tege ci kaw luy dundu loo xam ni dafa am sobe waaye laalu sobe sa loolu dund ga muy dund mooy tax du yàq leem waaye bu fekkee ni du bu boobaa julli ga day yàq muy nag wala huma sabu ma wasatahu baynahuma maanaam ñaari ñaar ñuy dund ñaar xam nga wax na leen la ni bu fekkente ne da ngaa sol yére li nga sol amul sobe waaye cat li nga xam am na cat lu nekk nee loo xam ne tege na ci kaw sobe da yàq sa julli waaye bu fekkee dafa tege ci luy dund ba du yàq sa julli mun nag waaye bu fekkente ni euh, da ngeen a bokk benn mbalaan maanaam mu sedd ngeen bokk benn mbàjj mu ngeen di jullee wala bokk benn palto sol ko ngeen bokk benn palto bi solko ko ka nga xam ni si côté ba mu sànq ba mu ba mu la laxasoo am na sobe mu am sobe yow mi nga xam ne sa côté bi amul sobe du yàq sa julli waaye nag bu fekkee sobe si dafa nekk ci seen diggante dafa nekk ci digg bi nekkul ci wàll gi nekkul ci wàll waaye ci seen diggante lay yéen ñaar dañ naan yéen ñaar yéen a moom sobe yéen ñaar ñëpp seen julli yàqu na moo tax mu ni wala huma yun sabu ñoom ñaar la askane maa wasatahu baynahuma maanaam lu xaw a lu xaw wula nag benn waay boo xam ni dafa sol yére yére bi gudd ba cat li tege ci kaw nit koo xam ni dafa am sobe yow du la wàññi dara waaye bu fekkente ni sobe si dafa nekk seen diggante yow dafa am genn wàll gu genn wàll gu gu gu gu nekk ci yow ak genn wàll gu nekk ci men mais sobe saa ngi ci seen diggante sobe saa saa ngi ci seen diggante bu boobaa yéen ñaar lañuy ñuy askana sobe dañ naan yéen ñaar yéen a moom sobe si yéen ñaar ñëpp la moo tax mu ne walahuma yunsabu ma wasatahu baynahuma nag mu tekki ni wa aaqidun bi udwihi jamal fa ma aqallathu safinatu xamal benn waay boo xam ne si dafa laxas dafa takk benn cëram tànkam wala loxoom mu takk ko ci maanaam buumu gaal yu dijj yooyu ñuy wax jamal maanaam dafa jël jamal jamal mooy buumu ngaax yu dijj yooyu takk ko ci loxoom wala tànkam ngir bañ gaal gi dem te buum gi buumu ngaax googee gu dijj gi ma nga ko takk ci gaal gi ngay bañ gaal gi dem nga takk ko ci sa tànk wala ci sa loxo bu boobaa bu sobe sa amee bu gaal ga amee sobe yow day yàq sa julli waaye loolu gaal googu nag bu doon luy dund la bu doon aw nag la walla muy fas wala muy xar nag wa am sobe xar ma am sofe sobe wala fas wa am sobe du la wàññi dara moom la waxoon sànq ci bii passé ni laa fawqa xayin xayrihi kon bu ñu tënkee wax ji mooy benn waay boo xam ne si li ko buum gi ko liyee ak sobe lam ko lënkaleel luy dundi la buum gi du la wàññi dara sobe si la lii du la wàññi dara mais bu fekkee ne loolu duluy luy dund lu mel na gaal moo tax mu leeral ko mu ne wa aaqidun aji yeew bi udwihi ci benn ci cëram ra jamal bopp buumu ngaax gu dijji bu boobaa fa ma aqallatu lépp lu mu yanu as safinatu gaal ga ci sobe xamala moom waa ji yanu waale na kon loolu ngeen gën cee déggaat ni lañ leen doon wax leen fàttaliwaat ni euh, wala yadxuluna al jannata xataa yalijal jamalu fi mil xiyaati yàlla dafa wax ni yéefee du dugg àjjana lu dul buumu ngaax yu dij yooyu dafa dugg ci bën bënu pusa jaaxaloon na ñu bare nag waaye yaakaar na léegi ñu bare bare bare gën nañ ci am euh, ak leer euh, am nañ ci yeneen i tegtal yeneen yoo xam si moo gën a leer léegi nag comme leer na ni jamal day firi gileem jamal day firi buum ko dijji loolu moom leer na dictionnaire boo dem dalay xamal ni jamal day firi buum ko dijji day firi gileem bu boobaa nag firee ko bi buum ci aaya bi moo gën a jub di ko firee gileem ndax bu fekkente ni yàlla dafa bëgg a wax rek loo xam si lu mustahil loo xam lu impossible lu mun tere yàlla dafa bëgg a loo xam lu jomb kon kay jarul mu naan gileem na weñ parce que gileem gën te jafee dugal ci bën bën pusa weñ yi dinaaw gileem gën te dugal ci gën te jafee dugal ci bën bën pusa janax kon kañ na ni janax jaru mu gileem jaru ko te bu fekkente ne lu rëy rek lay wax ñay moo gën a jafee dugal ci bën bënu pusa gileem parce que jir mu ñay moo gën a rëy bu bu bu gileem jir mu nag moo gën a rëy bu gileem kon yàlla lu mu fi bàyyee yépp bàyyi fi bàyyi fi melentaan melentaan gileem gën te jafe dugal ci bën bënu pusa melentaan bàyyi fi gunóor yi bàyyi fi yépp dem di indi ak gileem kon liñ ciy dégge mooy prix la boo xam ne si euh, njuumte la woon ci njuumte loo xam ne wàññiwul dara Seydina Umar Xataab dafa daan wax ni man li ma jaral sonn ci aay bi lu muy firi mooy defal ak bul def ba ñuy wax naan wa faakihatan wa abban ñi naan abb mooy mara maanaam daal xont la ñaan façon ñam la muñ leen nag man li ma jaral sonn ci alquran mooy ifaal ak laa tafaal mais ba baat boo xam ne si ajuwul ci ifaal ak laa tafaal wuute ci ci déggin wàññiwul dara jaral ko sonn kii tim xataa yàlla jël jamono fii sa fii samit na ñëpp xam ni jamal boobu ci alquran wul gileem donte nag ñëpp gileem lañ ko doon firi waaye firiwul gileem buumu buum yooyu ñuy takk gaal yu dijj yooyu moo tax Mouhamadou Fall moom indi ko fii wa xaaqidun aji yeew bi udwihi ci cëram yi rasa jamal bopp buumu ngaax bu dijj yooyee bu boobaa nag fa ma aqallatu lépp lu mu yanu asafinatu gaal ga ci sobe xamala waa ji da koy da koy yanu kon wa ma bi jambika tamassu aw yamas thawbaka aw taxta xasirika kanas wala bisun tarafa thawbin bi qadar طرفه الملقي بالأرض استدر لا فوق حي غيره ولهما ينسب ما وسته بينهما وعاقد بعضوه رأس جمل فما أقلته السفينة حمل maanaam bu ñu tënkaatee li ñu waxoon li ñu waxoon bu ñu ko tënkaatee Omar Say boo demee li ñu wax dara la ci xamoon ah dañ koy tënkalaatal kon li lim jëkk wax ci bayit bu jëkk bi benn waay boo xam da doon julli riisoog sobe riisoog sobe dañoo risoo rek te sobe sa taqalu ko tooyalu ko eh, fëndalu ko bu boobaa du yàq julleem sobe soo xam ni dafa nekk ci suufu basan gi julle du yàq sa julli benn waay bu sol yére so eh, ku di sol yére catal yéreem di buubu ci sobe nga xam ni mi dafa daanu di buubu ci sobe bu boobaa sobe soosu muy buubu yàq na julleem bu doon riisu ga nag du yàq julli mais buubu gam ci buubu day mel ne ko waa ji ci boppam dafa toog ci sobe waaye bu fekkente ni nag la muy buubu ci moom am na sobe waaye luy dund la te laalul sobe sax maanaam am xar nga yeew ko sa sa tànk wala bëy wala nag di julli bu nag wa amee sobe du la wàññi dara mais bu fekkoonte ni nag lu dundul la comme lu mel na gaal benn waay boo xam ne si dafa costé buum gi mu tekkee woon gaal gi jamal bi muy bañ gaal gi dem mu teg ko ci tànkam wala ci loxoom di julli bu gaal ga amee sobe eh, bu wa bu waaye julleem yàqu na moom mooy wa aaqidun bi udwihi rasa jamal fa ma aqalathu safinatu xamal asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ba xam na après mbokk yi danañ leen indil eh, maanaam dars bi ñu leen doon wax ci taqdisul ashxaas maanaam daj yooyu ñu koy daj te wutal ko barnaamij barnaamij bi ñu ngi ko tuddee kaburat kalimatan taxruju min afwahihim in yaquluna illa kadiban loolu noonu la barnaamij bi tudd noonu lañ fas yéene topp téere bi ba mu jeex ar raddul mursal ila Mouhamadou Amin Sall boobit duñ ko bàyyi dañ koy topp ba mu jeex tàkk nga xam si yéen ñëpp yéen a déggandoo bu ko defee nag ci xel ngeen àtte